Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. barakatuh mbokk yi ma ngi len di nuyu ci solution imour ngir fasiyene faram facce leral débat bi nga xamni amna fi mu nek débat bo xamni débat intellectuel la débat bi jëm ci li nga xamni moy walu leral faram facce parce que ciow li bari na adina war nga kep ñëpp a di yekati kadu di wax ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr jabaru Ousmane Sonko dugg fii genn fii ku nekk nekk fi di am loo xam ni yaa ngi koy rii tàmbale di ko waxaale ci mbir yi te wax dëgg fa yàlla loolu nekk loo xam ni rafetul madam Sonko nga xam ni kenn mësu koo gis ci télé mu yëkkati katu di wax porteleem dong ngeen daan faral di gis madam Sonko tey nangul ñu invitation bi pare ngir ñëw ci plateau bi ni ngir fas yéene faram-fàccee leeral ndaxte ku ne xam na ni coow li bari na. aji tuumaal na wax na wax yoo xam ni wax yu doy waar la loolu nag tax ki nga xam ni mooy madam Sonko ne dootut bàyyi combat bi ak Sonko donc waaye day kenn ci télé yi ñëw leeral eh, madam Sonko nuyu nañ la

loolu ah, loolu ma war a wax ah, ah déet defal ndax nag mënoo ñëw ci palaato bi démarré guñ nga bugg ceeb boole affaire loo xam ne déet bu dee da nga fee nekk bugg a def leneen da ngay génn ci biti hmm. waaw loolu laa la bugg a xamal bu fekkee ne da nga fay nekk am loo xam ne danga koy wax euh, ci émission bi ñu defat émission madame Sonko nga abal ñu. man lay fay. ma bokk plateau bi. voilà. madame Soko nga jéggal ma sama problème waye xam nga wax dëgg fa yàlla xam nga aji mom ken mun ta dem def ak moom nekk mun se ñak parce que mun na ma be jiñ sax bi yoon xam nga wóor nga lool yëpp wax dëgg fa yalla motax boy wax ak mom de ngay jël sa garde parce que bo jëlul sa garde mu mu bolé la ci liste eh, bi évidemment <laughs> bala mu ba ci dugal bu gaano ngi nonu di bu seetal bopam ba wax na de nga maam leralé xam nga liste madame Sonko. Hmm? aji mii tuumaal na la. wax na wax boo xam ni moom mii moo ko waxal boppam. Hmm. nee nag na dangaa xuloo woon ak Ousmane Sonko. nee na bi ngeen xuloowee te Sonko daa bëgg loo xonq nee na mu sol robb nga nga sol robb bu xonq pour bugg a moom waaye Sonko dalee fa ba daal di dem ci moom. Hmm. loolu noo koy jàngatee. waaw euh, dama koy comprendre rek te xam ni moom. Mm. Euh, li ñuy wax rek néegu sëy xat na xat boo xamante ne nii. Mm. ñaar ñu fa nekkul rek mënuñoo xam. Mm. la fa xew. donc su waxee ni man dama am. robe bu rouge. Mm. te je suis désolée malheureusement euh, amul sax ci sama garde robe. mon mm. nek mbir yo xamante robe bu rouge rouge danger. vraiment amoo robe bu rouge rouge sax dafa nekul sama couleur nak parce que mm. dafa nek couleur bo xamanteni ni dama ko xaw a ragal daal. surtout wa ko waaw ñemewoo ko ñemewu su waxee ni dama ko am mom dama kay comprendre ta xam ni waxu ko mer la rek et que euh, ardeur yi day am fu muy tollu rek. parfois so waxee rek da ngay jéem comprendre nit ki si lu mu wax mais sama jëkkër xamna na man xam na. <laughs> aji yow yaa waxoon ni yaa ko wax. Oh, yaa faram fa cee daal di wax di madame Sonko dafa sol robe boo xam ni robe bu xonq la te madame Sonko weddi na ko. ah da nga ko weddi. waaw xam na Ousmane Sonko dafa bëgg rouge. rouge muy waaw moom bañ nag moom jënd na robe rouge pour topp ndaw ma. kan moo jënd moom mii taxa. Ah, madame Sonko. <laughs> waxee ku, ku ku bëgg a wax la rek man amul problème moom wax rek baax na mais man l'essentiel daal li ma ñoo mooy say wax ah waaw xam nga tuuma moom mi ngi nii tuuma tuuma aji moom xam nga wax dëgg fa yàlla tuuma na waaw waaye wax dëgg fa yàlla li nga wax aji yow lu tax nga jëkki-jëkki éwanté éwanté mo dama wax dëgg dama dang bi seere Ousmane rek di ñami ñami ñam ah. ah, yow ko xam Sonko xam ne ah. ñun vraiment ay ibaadu lañ ku dal kon du ñami ñami non ah. dañu dal fépp ñun suñu lépp dañuy ànd ak tey ak mm-hmm. ak teg mm-hmm. donc suñu gisee parfois yenn yi ah, dañuy jàpp ni xale mooy def loolu rek xale mooy def loolu et mm-hmm. tolluwaay la peut-être un jour viendra que ni dina bàyyi yi ni mel léegi yow bi ngeen déggee rek xëy xëy rek dégg aji toog daqal Sonko loolu nan ngeen ko jàngatee waaw ngeen xëy rek gis rek ne aji taxal na Sonko seen jëkkër xamee wu leen ko len lu dul danga maam liggéey taraawaay kenn mosu koo dégg ci len nekk opposant numéro un ñu tuumaal ko nu ngeen ko jàngatee. waaw ndax mereewu leen Sonko. non suñu xel nag mosu see ñaaw. parce mm-hmm. que xam nañ suñu jëkkër. te mosul def dara loo xamante ne nii waxuñu euh, parce que bu muy dem di génn di dem foofu sax. Mm-hmm. Euh, xamoon nañ ni dafa feebaroon. Mm-hmm. n'est-ce pas bu mu toogee wax ci conférence de presse bi loolu la wax dañu jàppoon que ni rek euh, dafa génnoon. moo tax bi mbiri éclaté rek ñun dañu ànd ak dal. surtout comme lu ma la wax rek ñun suñu lépp teey la. problème bu amee sax. bu la dal mayul nga régle ko sax boo indee fitna rek mën nga def erreur te loolu lañ doon bañ jërëjëf euh, aji euh, yow le fait que ñi nga xam ni ñoom nga wax tuuma gu rëy gi jëmale ko ci ku mel ni président Ousmane Sonko mm. euh, ba noppi nga gis ni jabaram yi ñi ngi toog jàpp seen njàmbur te def nga fi ay live yoo xam ni live fu gaaruwaale la daan madame Sonko yaa ngi noonu di ma seetaan xam nga ni Sonko daa bëgg lu ruus loolu yëpp gaaruwaale googu pour tas kër ga moo taxoon nga jóg wala. non hmm. wax lu am. Hmm. parce que Ousmane Sonko man maa koy daaneel. ah Ousmane Sonko. maa koy daaneel <laughs> xam nañu jonge wuñu te xamuñu massage xam dama koy massage def yu baax. te ah. ñu baax xam na. kon jonge leen madame. <laughs> non non. yàlla dafa def ne nag ñun lañ takk. Mhm. indi ñu si si si kër gi. bu ñu jongewul woon amaana duñ ñu takk ba di ñu indi si kër gi ndeysaan dama kaa yëram nag te sama rakk la xamul dara. Mhm. bu ma sañoon daal wax dëgg yàlla mu dellu ginnaaw si lu mu nekk parce que ñu koy encadré. Mhm. bàyyi ko mu yëgale voilà nga ne ñoom jongewuñ. ñoom jongewuñ xam nga kon moo la wax jongewuñ yow. Ousmane Sonko. moo la ko wax. nee na ñoom duñu cuuraay duñu xeeñ lu neex te en plus seen col yi dem odeur franchement waaw. Mm. waaw Sonko di dem ko dóor xamuñu li neex daal moo tax Ousmane Sonko di ma wër fu ma nekk mu fekk ma fa. yow aji yow mun ngaa tuumaalaat. tuuma. waaw dëgg laa wax de. ah déet noo waxee de. dëgg laa wax. ah déet lu noo waxee wax dëgg fa yàlla li mu wax leer na ñoom seen borom kër eh, waxoon na leen ni mi ngi faju ji. faju ji dafa feebar. <laughs> man de lay wër. ordonnance la pour faju ordonnance pour faju musul faju yu neex yu ma koy defal la taamu. déet Sonko yow fan moo doon ah, ah. dafa am problème ci doo bi. ci digg ginnaaw moo taxoon muy dem di maasale wu ji. mais hmm. nag euh, comme ni ma la ko waxee rek. Mhm. ñun moom suñu lépp tekk la ak dal ak tey te ñun ñoo nekk si biir kër gi nag. te waaw am na ñoo xam ne ñu ngi wax naan lu tax yéen lu leen ko woon a foroote daal di koy maase am na ñuy wax loolu. lu waral mais xam nga li ñuy wax ne euh, feeb jàngoro bu nekk ak ñi koy faj. ñun mhm. peut-être lañ ca mën def nañ ko mais am na loo xamante ne nii lenn li. professionnel professionnel yi rek ñoom ñoo. aji yow daa fekk dañ ko mënul. daa fekk dañ ko mënul tamit dama nekk professionnel macha allah. Ah, Oh, daf ko jàng nekk. waaw dem leen jàngi ko kon. parce que mënoo leen ko na lañ yàlla def na ñun euh, fi ñu nekk sëy lañ ñu sant. waaw sëy ak liggéey yi dem wàcc ñoo. non soo leen mënoon seen mm. boor comme Ousmane Sonko mm. du ñëw si man. Mm. waaw waaw. du ñëw si man. dama ko mat sëkk mat ko aaw mat ko ñaare mat ko ñetteel ba ñeenteel. ndeysaan boo ko déggee muy wax rek xam ne xamul dara ndeysaan. xamul waa aji yow soo audio yi nga xam ni génn naa ci dëkk bi nga xam ni wax dëgg fa yàlla yow ci sa jëmmi bopp dégg nañ la li nga wax MC Niass dal di leeral ne lepp ay tapale la tapale yu lu la ci dugal ta tapale yi meuna yengal keur jambour ko kan len ay tapale la. ah ya ko wax ci audio yi. man. waaw kagn la ko wax. ah ah bi len bi len mo sosal kan audio yi kagn a ngi wëndee. non non du man. aji ah, du man. audio du mom madame zoko bi nga déggee audio bi nga déggee audio do def. Nah, ada xanaare ngeen di ay xeetaan daf ñu jàpp parce mm. que depuis si début bi mosuñu woon gëm suñu am mm. na capacité di dem di def yenn yi mm-hmm. moo bi audio yi génnee rek dafa gën a que ni mm-hmm. tabaarakaal dafa leeral dafa gën a mm-hmm. ko aji yow sa audio yaa sama audio man mi aji Sarr <laughs> aji bari ngay audio joo man démb rek beneen génnaat la. man mii. Mm-hmm. <laughs> du man de xam <laughs> na dama nekk Sénégal. waaw du man. du man. du yow <coughs> man aju audio yi du yow. du man ah, mun ngaa weddi de. Ah. du man de du man audio yi. ndeysaan nee yi du moom. Hmm? comprendre ko rek. Hmm. Hmm. <laughs> madame looy wax sénégalais yi. waaw xanaa rek euh, di waxaat ne nañu gën a jàpp suñu borom kër muy mm. usmaan Sonko que lépp loo xamante ni mm. wax nañ ko ci rek mm. ñu jàpp ni audio yi leeral na ko comme ni mu ko mm. waxee tout à l'heure nañ lépp di leen gërëm bu baax baax di la remercier tamit teew bi nga xamante ni nii teew naa ko fi mu permettre ma ma leeral laaj yu bëree bëri merci beaucoup jërëjëf euh, madame Sonko wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ci ñëw bi nga ñëw ci plateau bi aji ci biti si <laughs>